léegi nag mbokk yi maa ngi leen di fàttali xabaar bu baax bi ma leen yëgal xabaar bu baax boobu nangu ngeen ko te yéen a ngi ci sax ci moom ngeen jaare ba mucc bu ngeen téye bu dëgër njàngale mi ni ma leen ko yëgale walla xanaa boog gëm ngeen ko ci neen li ma jotoon jottali naa leen ko te moo jëkk ci maanaa yi kirist dee na ngir dindi sunuy bàkkaar ni ko mbind mi tërale suul nañu ko mu dekk ci ñetteelu fan ba ni ko mbind mi tërale feeñu na sefaas teg ci fukki taalibe ya ak ñaar gannaaw ga feeñu na lu ëpp juróomi téeméeri mbokki taalibe ci benn yoon te ñu bari ci ñoom ñu ngi dund ba léegi waaye am na ñu ci nelaw ba noppi feeñu ne saak ak ndawi kirist yépp man nag la mujj a feeñu ma mel ni liir bu judduwul ci jamonoom ndaxte maa gën a ñàkk solo ci ndawi kirist yi te yeyewuma sax ñu may wooye ndaw man mi doon fitnaal mbooloom yàlla waaye nag yiwu yàlla moo tax ma doon li ma doon te yiw wi mu wone ci man du cig neen waaye sax maa gën a liggéey ñi ci des ñépp du ci man waaye yiwu yàlla wii jëf ci man moo tax noonu nag muy man muy ñoom dénkaane boobu lañuy yégle te moom ngeen gëm waaye su nu yéglee ne kirist dekki na nan la ñenn ñi ci yéen mën a waxe ne néew yi duñu dekki su fekkee ne ñi dee duñu dekki kon kirist it dekkiwul te su kirist dekkiwul sunu waare day neen te seen ngëm day neen rax ca dolli gis nañu ne seddal nañu yàlla ay fen ndaxte seede nañu ci mbiram ne dekkal na yeesu te fekk dekkalu ko su néew yi dul dekki su néew yi dul dekki kirist moom it dekkiwul te su kirist dekkiwul seen ngëm du am solo ba tey yéen a ngi ci seeni bàkkaar te it ñi dee ba noppi ci kirist sànku nañu su fekkee ci giir dund gi rekk la sunu yaakaar ci kirist ame solo kon noo gën a mat a yërëm ñépp waaye léegi kirist dekki na di ku jëkk dekki ni guub yi ñu jëkk a tànne ci ngóob mi jagle leen yàlla ginnaaw ci nit la dee gi jaar dugg àddina kon it nit la ndekkite li jaar kon ni ñépp dee ci seen bokk ci aadama noonu la ñépp di dundaate ci seen bokk ci kirist waaye ku nekk ak ayam kirist moo jëkk mel ni guub yu ñu jëkk a ci ngóob mi ba noppi bu kirist dellusee ñi bokk ci moom jël seen ay gannaaw ga mujjug jamono taxaw te kirist dina noot gépp kilifa ak bépp sañ ak doole ba noppi delloo nguur gi ki yàlla di baayam ndaxte faw kirist nguuru ba kere yàlla di daaneel noonam yépp ci tànkam noon bu mujj bi mu fiy jële mooy dee gi ndaxte mbind mi nee na yàlla nootal na ko lépp mu teg ci tànk waaye bu bind mi ne noot na lépp wóor na ni moom mi ko nootal lépp génne na ci boppam léegi bu ñu ko nootalee lépp nag moom kirist muy doom ji dina delloo kilifteef gi yàlla mi ko nootal lépp ngir yàlla nekk buur ci lépp su ndekkite amul kon ñi ñu sóob ci ndox ngir ñi dee lu mu leen di jariñ su dekki amul kon lu tax ñu leen di soob ngir ñi dee te nu nit lu tax fu nu tollu nu jaay sunu bakkan mbokk yi ni ma damoo ci yéen ndax Yeesu Kirist ni la ma wóore ne bés bu nekk ma riisu dee su fekkee ne ci ni ñu ko waxe xeex naa ca dëkku efees ak rabi àll kon ban njariñ la may amal su néew yi dul woon dekki am na lu ci léeb wax nanu lekk di naan ndaxte ëllëg dinanu dee buleen leen ko réere mbir ànd bu bon dina yàq nit ku baax delloo ci leen xel yi te bàyyi bàkkaar ndaxte am na ci yeen ñu umpale yàlla kon war ngeen a ruus waaye dina am kuy naan nan la néew yi di dekkee wan yaram lañuy dellusee yaa gàtt xel li ngay ji du jebbi dund gu bees fii ak deewul ba noppi te li ngay ji du jëmmi gàncax giy ñëwi waaye pepp kese la maanaam dugub walla weneen jiwu noonu yàlla jox ko jëmm ju ko neex jiw wu nekk ak jëmmam jëm mbindeef yépp a wuute nit ak jëmmam malaa picc jën yu ci nekk ak sa jëmmi bopp am na itam ay jëmm ci asamaan ak ay jëmm ci suuf leeru jëmm ci asamaan wuute na ak gi ci suuf jant bi weer wi ak biddiw lu nekk ak sag leer te leeru biddiw bu nekk dina wuute ak moroomam noonu la ndekkiteel néew yi di deme bu ñu suulee néew bi dañoo ji lu yàqu bu dekkee du yàqooti ba abadan lu ñàkk solo lañuy suul mu dekki ak ndam lu néew doole lañuy suul mu dekki ak kàttan bu ñu koy suul yaram lay doon wu soloo woon ruu bu dekkee doon yaram wu soloo ndamu xelum yàlla ndegam am na yaram wu solo ruu kon dina am yaram wu soloo ndamu xelum yàlla mbind mi nee na nit ku jëkk ka aadama doon na boroom ruu waaye aadama mu mujj mi doon na xel muy joxe dund yaram wi seloo ndamu xelum yàlla jiituwul yaramu doomu aadama moo jiitu yaramu ndam li moo ci topp nit ku jëkk ka pënd suuf la woon ñaareelu nit ki di kirist mi ngi jóge asamaan waa àddina yor nañu jëmmi nit ki ñu sàkke ci suuf noonu it ñu bokk ci asamaan dina ñu yor melokaanu ki jóge ci asamaan te ni nu yore melokaanu ki ñu sàkke ci suuf noonu lañu yore ji melokaanu ki jóge ci asamaan li may wax nag mbokk yi moo di ne sunu yaram wii mënula am wàll ci nguuru yàlla te lu yàqu mënula am wàll ci li sax abadan lii ma leen di xamal mbooti yàlla la déglu leen duñu jaar ci dee nun ñépp waaye nun ñépp dinañu soppeeku ci saasu gàtt ci xefak xippi bu liit gu mujj gi jibee ndax liit gi dina jib néew yi dekki di dund abadan te nun dinañu soppeeku yaram wu yàqu war naa sol jëmm ja dul yàqooti te yaram wii de sol dund gu sax abadan bu li yàqu solee melokaanu li dul yàqu te liy dee sol melokaanu liy sax abadan kon lii ñu wax ci mbind mi mat yàlla noot na dee ba ko ci ndamam cey yow dee ana sa ndam cey yow dee ana sa dangar ji ngay fitte dangaru dee mooy bàkkaar te dooley bàkkaar mooy yoon wi waaye jërëjëf yow yàlla di ñu jox ndam li jaarale ko ci suñu boroom Yeesu Kirist kon nag samay mbokk yi ma sopp na ngeen takku samp ba dëgër te gën sawar ci liggéeyu boroom bi xam ne seen liggéey bi jëm ci boroom bi du neen